mbokk yi nuyuwaat na leen di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax euh, di nuyu bu baax euh, sunu gan Moussa Fall dinañ ci dellu si seen émission focus focus nag euh, tey jii ci solution TV ñu fa yéene dalal Moussa Fall Moussa jiite parti bi naan Aprodel Aprodel bokk ci coalition Jonn 2024 maanaam coalition bu Mohamed Boun Abdallah Jonn teg ci tamit doon na membre. comité électoral ah. wala boog président comité électoral euh, coalition bi ca diwaanu Kaolack. en même temps aussi tamit euh, nga yor commission bi yor wàllu patronat bi. ci coalition jonn président bu nu waxee patronat bi mooy njaatige kërug liggéeyukaay yi. di fàttali ni yaa ngi ci impôt et domaine aussi. waaw am jaar-jaar bu yaatu moom Moussa Fall dinañ ci dellu dellusiwaat doon leaderu parti Moussa ñu ngi lay dalal bu baax euh, di la nuyu. voilà jërëjëf Omar ñu ngi lay nuyu baax. <laughs> di nuyu kër gi ça fait plaisir encore ma ñëw fii ci ci euh, ci kër gi Walfadjri émission focus émission focus mhm. mu nekk euh, un plaisir mhm. euh, di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu kilifa kër gi commencé ko ci PDG bi ba ci journalistes yi ñi nga xam ne ñu leen di seetaan suba bu dee bëccëg Euh, am naa kontaan lool pour tew fii euh, ci émission Focus. di la nuyu bu baax Moussa nga jiite Afrodel. bokk ci coalition Jonn 2024 mais aussi jiite comité électoral bi ca diwaanu Kaolack. Mm-hmm. Euh, tey jii musaa ñu njëkkee dialogue national bi. Mm-hmm. mu am une exception mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne parce que bu nee les 19 candidats les 16 yi bokk ci opposition bi 17 nga boole ci Idrissa Seck. Mm-hmm. ñoom demuñu ci dialogue bi maanaam bu ñu dee wax à part le candidat. du président de la république euh, Amadou Ba. Mohamed Dionne rek moo dem ci dialogue bi. ñu bari nag comprendre ñu yan raison moo ko fa yóbbu expliqué na mais les gens se posent des questions lan moo xew ci diggante Macky Sall ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ba tax mu woote dafa jiital réew mi wala dafa jiite diggante ak Macky Sall wala da am lu mu bëgg ci Macky Sall te amagu ko moo tax mu dem fekk ko ci dialogue bi. voilà euh, c'est une question très pertinente à mon avis que. Euh, euh lu ñaan lu yëngu la ko yëngu boo ko ëppal doole moo ko ëpp doole dafa fekk ni bokk na ci ñi nga xam ni euh, li tax ñun ñu ànd ak moom parce que nit dooy ànd ak moom dafa am lu tax nga ànd ak moom li tax ñu ànd ak moom d'abord moom mooy caractéristique yooyu maanaam jikko yooyu qualité yooyu mu am parce que ñun nekkatuñu ay xale ci wàll politique parce que lu politique ku ko def fanweeri at mhm. jaar ci parti politique classique yi ba créer a parti dem ci coalition yi depuis 88 93 98 2000 2012 yëpp ñu fekkee ko nekk ay acteurs yaakaar naa ni nekkuñ tuune. di fàttali ni yaa benn bokk yaakaar. maa ngi woon ci benn bokk yaakaar. ah dinañ ci dem ci kanam waaw donc jaar ci pôle de gauche. nekk LDMPT jaar fu nekk. yaakaar naa ni tey du ma tànn du ñu tànnee ñun ku mel ni Mohamed Boun Abdallah Dionne pour def ko suñu candidat. Mhm. parce que dañoo am taxawaay bu taxaw ci réew mi. Mhm. taxawaay bokk na ci. mooy sa posture républicaine parce que réew mi ñëpp mënuñ nekk ay politique politicienne ñëpp mënuñoo nekk rek ay marchand politique ñëpp mënuñoo nekk ay vendeur d'illusion mhm. il nous foo des gens yoo xam ni ci seen jaar-jaar ci seen xarañ ci seen compétence ci seen cursus ci seen sens de responsabilité ñun war ngaa mun a jiite Sénégal mhm. d'abord loolu da cee jiitu posture boobu noonu mu wane muy la posture républicaine réew mi rek moo ko intéressé. Mhm. parce que loo mun mënti wax tamit jonn am na jaar-jaar ci réew mi. Mhm. daanaka gannaaw Habib Habib Thiam defe naa c'est le seul premier ministre boo xam ni moo gën a yàgg ci post bi nga xam ni ci la jógee muy premier ministre Sénégal. Mhm. def ko def ko la mat juróomi at. donc kooku noonu yaakaar naa ni ni nangul nguur xam ne luy nguur. fépp foo xam ne président Macky Sall jaar na fi ak liggéey boo xam ne liggéey na ko ci réew mi bokk na ci moom empr emprunté mang ca loolu important. donc critères yooyu noonu tey moo tax du demee bokk coalition bi xalaat nii réew mi toll na foo xam ne dañ ko war a waxtaanee parce que nekkul ni da ngay mere nit wala nga àndatoog Macky Sall wala Macky Sall pare na war a dem ñun ñu sacrifier l'intérêt de ce la là autour ci ay vider ay contentieux politique jon nekkul dans une dis dans une dynamique de vider un contentieux politique avec Macky Sall ci biir bokk la bokkoon. ànd ba jeex na Macky Sall tànn na candidat am jonn nee na moom jàpp na ni moom mënut a ànd ak candidat boobu. mun a ànd ak candidat boobu dafa bëgg a nekk candidat. bi mu nekkee candidat tamit sénégalais yi ñi nga xam ne wóolu nañ ko jug ànd ak moom. loolu nag moo tax tey posture boobu mu wane muy posture républicaine ak cofeel gu mu am ci réew mi ak patriotisme mu am ci réew mi moom moo jàpp rek ni réew mi toll na foo xam ne dañ ko war a waxtaanee. te nag saa xamal la. gis nga mbir dana toll foo xam ne président Macky Sall jàpp nañ ni ñun. ci une conviction ni amatul lu muy def Sénégal li foo war a def def na ko te mandaam leeral na ko ñaari yoon ba ci ñetti yoon nii le 2 février lay jeex le 2 avril. le 2 avril waaw. donc koo xam ne yow jeex na ne yow fi mu nekk nii def passation de service dem sa yoon moo ci nekk mais ñun suñu intérêt moom mooy réew mi ñu téye ko réew mi ànd ak dal réew mi ñu waxtaanee ko penco ko penco ko ba ku nekk mën a joxe sa xalaat ñu mun a tënk loo xam ne danañ génn ci crise bi parce que impasse lañ nekk. mais jonn euh, Sénégal dafa nekk dans l' impasse. waaw ah. mais John dafa am proposition yu mu def ci kanamu Macky Sall. mais bu ñu gisee conclusion démb dialogue bi ak commission yi li ñu génne mooy dafa am ñetti point yu ñu indi. mooy ñu dem ci élection boo xam ne gëm naa ne li John woote benn rek lañ ko ci wuyu. Mhm. mooy kenn du reprendre la processus. maanaam mais mën nañ ko ibbi ba am ñu bokk. ñu bokk loolu proposition la beneen bi. Mhm. proposition mooy le 2 juin. juin. léegi à partir du 2 juin. Mm-hmm. ñu dem élection. mais dafa am lu ñuul kii soow mi mooy. Mm-hmm. le président le 2 lay jeexal comme ni mu ko waxee. le 2 lay jeexal. mais bu dee ni le 2 lay jeexal le 2 avril te le 2 juin ñu war a dem présidentiel ñaari weer yuy dox ci diggante 2 juin ak 2 avril kan mooy jiite réew mi ci intérim lay doon wala lan mooy xew. mais commission bi loolu la doon réglé. comment commission bi moo tax président xam nga bu ñu dialogue moom dong mënut a am na borom borom bi xam-xam am na ay juristes am na ay constitutionnalistes am na des des de la société civile ñëpp dañuy toog ñu waxtaan. Mhm. ci yan anam la ñuy fexe ba le 2 avril lu jeexalee. Mhm. constitution bi may na ko may na ko mu téye réew mi ba def passation de service. léegi nag bu dee dialogue la ñuy waxtaanee xam nga génn nañ ci cadre légal légal bi maanaam élection yi élection yi élection yi dégluwul élection yi le 25 février la waroon am mhm. donc nous sommes dans une ñu nekk tey ñun ñoo war a seet ci yan anam ak ci biir dialogue bi nan la président di ñu koy maintenir ba mun a continuer ñu sa euh, continuer procédure bi te kenn du dàq lañ amoon lañ njëkkoon am kenn du ko dàq parce que jàpp nañ ni li liñ njëkkoon am moom mooy les dix-neuf candidats yi nga xam ne dafa leen dañ ko ñu ne nañ fexe ba pour le souci d'ouverture de stabilité de de paix mm-hmm. ñu fexe ba ñi nga xam ni tey seen candidature yi dafa amoon sikki sàkka te mhm. amoon ay juum-juum ci am ay jafe-jafe ci am mu ne loolu dañ ko seetaan loolu tamit nuñ tudd nuñ tudd mën a justice la ñooñu dañuy rendre dañ leen rendre justice pour que ñoom ñu mën a bokk ci élection yi loolu tamit wax dëgg yàlla Karim Meïssa Wade loolu nangu loo ko bañ bañ d'accordal ni nii wax dëgg yàlla tey élimination dafa jaaxal àdduna bi yëpp loolu problème la mais ñu ne kon nañu nañu nañu def nañu nañu nañu nañu nañu nañu def nañu def ni wattaale mboobaale ni ko o Njaay di waxe mm. daana content Euh, maintenir la liste de 19 ensuite ubbi nag ñi nga xam ne candidats yi nga xam ne candidat spolié yi nga xam ne tamit nii ku mel ni may sa kanam may sa waat mu waroon a bokk ñu fexe ma boobu du mu bokk ci élection yi loolu mooy mooy wax ji léegi nag le date léegi pourquoi waxoo Sonko date du 2 avril bi pourtant préjudice bi ñu teg euh, Karim lan teg Sonko waaw mais pourquoi waxuñu Sonko mais mais mais parce que man depuis démb damay dégg euh, nit ñi Karim rek lan lay wax pourquoi pas Sonko non non non non mun nañu dañu gis ni liste bi nga xam ne conseil constitutionnel génne woon na ko. Mhm. am na ñoo koo xam ne am na double nationalité ah sunu sunu sœur Rose Wardini amoon na double nationalité te ñu maintenir ko dugal ko ci biir liste bi te Karim Wade ñu génne ko ci loolu jàpp nañ ñun injustice la loolu la foofu la ñu waxee. non parce que dañ ko signalé. dañ ko signalé bokkuñu. voilà ci Thierno moo jóg signalé Karim. signalé ko Rose kenn signalé wu ko. mais moo tax léegi nag ah. Rose ci boppam. Hmm. xam na ni jam jamono dem na ba mu xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg double nationalité la. Hmm. génne ko teg ko ba pare démissionné. Hmm. loolu am na y' donc léegi nag ñu ne bu dee ñun luwaay yi ñun ñoo koy defar ñoo koy tëgg ay jinne tëgg ko ay rab tëgg ko ay malaaka tëgguñu ko ay sénégalais ñoo koy tëgg mhm. mais nañ toog waxtaanee ko duñ ko waxtaanee seet ci yan anam pour réew mi dal réew mi ñi war a bokk ci élection yi bokk ci ñi ci war a dugg dugg ci ñi war a participer participer ci Sénégal am jàmm ñu ne loolu jar na ko li mooy lii mooy di wax ji jonn nag moom mhm. jonn position bi mu taxawee mhm. moom la taxawee bu depuis le début depuis le début wax na Macky Sall wax na à travers des émissions fii ci Walfadjri ne leen il est contre le principe du report loolu nous sommes d' accord. mais report bi am na. report bi am na. waaw mais du amee mais du amee mais nag du amee xam nga ndox du. tuuree teg ci sa responsabilité est engagée aussi mënoo ko ci génne. non bu dee report am na parce que participer na au dialogue bokkoon na ci commission yi ak travaux yi kon bu ñu posé élection yi sa responsabilité est engagée. alors que moom du loolu ñun ñun en quoi sa responsabilité est engagée moom ci boppam moom da ko dafa dàq principe ni ñu reporter élection yi masuñu ànd. loolu d' accord wax na ko fii la ko waxee seen kër. ci fii la ko waxee. nee na masul d' accord ba ñu ba ñu koy cogiter ba ñu commencé di waxtaan. muy génn nit ñi naan dañ koy reporter boobu lañ njëkk a wax ni moom d' accord ci report élection yi. loolu kay notre position est très claire maintenant am na lu ci. lu ci dugg loo xam ne bokku ci. mooy. wax na ko ci dialogue bi nee na am na loo xam ne du ñu ko defee dem ci élection tamit hmm. euh, ëllëg si biir képp ku gagné élection yi da nga indiwaat yeneen problème yu ñuy posé waat lañ ko waxtaanee waate ba pare sans que ñu interrompre le processus mais fexe ba ñi nga xam ni tey dañ leen a tuumaal ci wàllu googu ci wàllu gerte ci biir pro ci biir processus bi te ñu nekk ay membre éminent du conseil constitutionnel mu ne nañ leen létt bala ñu firi leen ñi leen jiiñ ñu naan dafa am détu dañoo am. Euh, euh, corruption euh, corruption ci loolu dañoo jël alal mu ne loolu nañ ko leeral duñ ko leeralee ñee seetal leen wala ñi ko waxoon tamit ñu xam ne li ñu waxoon du dëgg du boobaa tamit ñu rëq seen digg ñu faj ñu ñu ñu teg lañ ci yoon loolu la jonn wax ñetteel bi mu ne processus électoral bi ñi ak candidats yi nga xam ne ñoo ci nekkoon candidats yooyu il est impensable ñu reprendre ko. il est contre la reprise. mais nan leen mën a dugalee yeneen candidats. kon alors que depuis que le 20. la liste elle est définitive te liste bi conseil constitutionnel génnee ñoo ñooy les candidats valides. non déggoo ma ne la tey jii nan lañ mën a defee tey jii loo xam ne loi da ko tëral dialogue di ko soppi quoi alors que la loi. mais déggoo déggoo daani dama ne léegi xam nga loi bi ay ay jinne defuñu ko ay sénégalais ñoo ko def comme ñun man man comme yow mhm. ci waxtaan lañ ko teg législateur bi nit la. ñi waa membre conseil constitutionnel nit la seen président de la république xam na ni y' a crise crise boobu moo tax ñu tax ñu waxtaan. crise boobu ku ko créé. crime mais ci Macky Sall la jógee ah, d'accord nañ parce que Macky Sall moom moom moom moom moom la assemblée nationale bind ne ko jàpp nañ ni commission d'enquête dañ ko war a taxawal parce que dafa am loo xam ni dañ koo jiiñ ñi nga xam ñooy conseil constitutionnel ñu jàpp rek ni kon à l'époque xëy na jàpp nañ duñu demee élection am na ñoo xam ni ñoom duñu nangu li nga xam ni moom mooy résultat yi nga xam ne mooy génn ci urne loolu lañu xalaatoon mais moom de toute façon mhm. bu dee dàq na élection yi ba pare te ñun xam nañ ñi amuñ beneen voie de recours lu dul toog waxtaan ñu jàppaat date élection yi parce que ndox du Touré moom. lu ñu naan ndox du Touré avant le 2 avril. pour ah, ñu bañ a dugg situation bi ñu dugg nii. waaw mais xam nga dafa amee délai légal tamit xam nga mënoo tëb rek. Hmm. dem ci 80 jours yi nga xam ne tey moom moo dox suñu diggante ak loolu yaakaar naa ne tamit ak élection yi loolu def naa ni ak durée bi nga xam ni 21 jours yoo xam ne campagne électorale nga xam ne pré euh, candidats yi am nañ sañ-sañ seen droit la pour ñu dem nag dem campagne yi. loolu tamit yàgg na ci mais Moussa yokk mën nga ndax waxtaan mais mënoon nañ waxtaan pour wàññi. mais mais mais mais wàññi nañ ko parce que le 15 décembre lañ jàppoon le 15 le 15 décembre lañ kon jàpp na ni kon lañ jóge woon nekk nekkoon nekkatuñ ci. ñu ngi ban naan le premier juin diggante boobu léegi ñaata ñaata la nous sommes mois d'avril mais juin. mais yow daanaka ñetti weer gëm nga ni Macky Sall bëgg na fi jóge non mais ma ah li ma gëm moom mooy li ma gëm moom mooy parce que ay tabaski ay daaka ay koor ay nawet maanaam yi mu indi mais yooyu ajul ngooñ am ba Moussa 88 ba léegi ak sa expérience dinañ ci dellu ci kanam mais mu Moussa mu fekk nga fi élection bu ne. mais nag pré li mu Macky Sall teg pour reporter ay élection wala nan pousse ay élection mais loolu du lu valable parce que loolu fi la nga ko fekk te fi la nga koy bàyyi. mais mais justement mu tax ñu suñu on n'a jamais été d' on n'a jamais la coalition Dionne 2024 est catégoriquement contre le report ko wax dañ ko wax avant mu koy def mooy suñu jóg te Sénégal yëpp accord nañ ni Dionne wax na fu ne taxaw na fu ne taxaw ne leen Macky Sall amul sañ ñu dàq élection yi maay nag dafa am loo xam ni. Hmm. du amee ba pare ba ñëpp ñëpp constaté ko. il faut trouver une solution solution moom mooy ñu toog waxtaanee ko parce que duñ bàyyi Macky Sall rek kese kese kese ak ak partem mu dem toog décider li muy def si décider réew mi ci lañ bokk Ousmane Mohamed Boun Abdallah Dionne ci réew mi la bokk donc war na am sañ-sañ du ñu wootee mu dem fekk fa ñu koy waxtaanee joxe xalaatam. mais loolu mooy patriote mais léegi opposition bi dem nañ conseil constitutionnel dugal recours les conseil constitutionnel bu ñëwee ne li Macky def àndu ci. mais ne ne nan jàpp date avant le 2 avril léegi ci ban situation la ñuy indi. mais du boobaa ñu constaté ko ñun ñëpp rek ñu constaté ko président république ak conseil constitutionnel jàpp li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom mooy yoon mooy yoon loolu lañ leen ci jàpp ah. mm-hmm. loolu kese lañ ci jàpp. mais am mais amuñu. mais Moussa am na ñu ne seen dem ci dialogue bi wax ji waxoo leen ko quoi. Mm. li ko indi yëpp mooy mooy da ngeen bëggoon nekk candidat wu Benno nekkoo leen ko comme bi ñu tànnee Amadou Ba yéen àndoo leen léegi seen ñàkk ànd boobu tax ngeen feddi géew dem créer seen mbiru bopp mais bu ñu déggee fan yee passé Mamadou Moustapha Diagne mm-hmm. yor communication bu jonn président directeur de campagne directeur de campagne waa mm-hmm. mu ne tey jii mbiri corruption yi ñuy jiñ waa ji ñun tey jii ñooy candidat yi bu légitime pour coalition bennoo tey jii bu ko laajoon tey pour ñu mën a ñëw nekk candidat bennoo dañ koy nekk ni na ñu ne uude euh, lu mu wax ci béy bu feebar rek ñu ne derba la bëgg est-ce que nekkul ni ak jonn boo déggee discours am te yow sànq dellu siwaat nga ci mbiri corruption bi maanaam euh, li naan les question qui dérangent wala les sujets qui dérangent correct bi mu ñëw ci dialogue bi li waxam di gàtt gàtt dafa évoqué loolu mooy corruption bi te corruption bi ñëpp xam na ne Amadou Ba la laal dafa mel na jonn ba tey jii mënut a xajoo Amadou Ba mu ñu tànn comme candidat bu Benno comme yow aussi looloo tax génn Benno ak ñenn ci Benno dem ànd ak jonn est-ce que nekkul Amadou Ba moo leen di déranger yéen. non non xam nga xam nga xam nga euh, euh, xam xam waay xam nit xam ko xam ko fréquenté ko moo gën gis nga euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkul un rancunier nekkul nit koo xam ni. Hmm. il est omnibulé par la poste les candidatures. Hmm. il n'est pas omnibulé par le par le fait d'être le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Hmm. moom dafa bokk dafa am ay ambition pour réew am jaar-jaar. am xam-xam am compétence Sénégalais yi teg ko ab poste de responsabilité Macky Sall teg ko fu mu gérer ko de la meilleure de manières. Mm-hmm. kooku noonu tey en tant que sénégalais tout court. Mm-hmm. moo am yéene pour liggéeyal Sénégal. Mm-hmm. liggéey boobu dañ ko ko nangul. ñaareel ba les questions liées à Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp fa la ñu nekkoon. mais politique mais mu mënuñ ànd ci benn. ci benn ci benn mënuñ gis politique ñëpp mënuñu ànd ci benn ci benn question ànd choix Amadou Ba non man non man man question boobu dépassé naa ko parce que hmm. bennoo defe naa ni ñi ma xam-xam nañ ni depuis fukki at ak ñaar ma nga fa donc man jàpp naa ni du ma revenir ci ay sama passage ak sama li ay li ma gëm gëm tey dem hmm. moom mooy ni soutenir sama candidat mooy jàppale ko waxtaan fexe ba ëllëg si biir ñu ngi koy dénk ñu ngi koy dénk réew mu indi Sénégal sans soppi Sénégal te indi li Sénégal soxla parce que Sénégal John wax na ko mu bokk ci xam naa danañ ci dellusiwaat mu bokk ci programme fondamental mm-hmm. mooy ñu réconcilier sénégalais yi. sénégalais yi doo seetee doo seetee euh, Omar. Mm-hmm. yow xam nga nii sénégalais yi ñëpp a réeroo kër yi famille yi liggéeyukaay yi mbedd mi euh, euh, les catégories socio professionnelles ñëpp kenn personne ne parle le même langage donc. yaa a des difficultés yoo xam ni am na ci réew mi te loolu li ko indi moom mooy ni añaanante gi soxorante gi politique bi dem nañ ba ba ba amatul un visage humain pour nga def politique il faut nga soxor. il faut nga defante te foofu laay daanalee moo ne la moom nekkul ci dynamique boobu ñun dañoo jàpp ni Amadou Ba. Hmm. candidat Benno Bokk Yaakaar la. Hmm. Macky la xam na li tax mu tànn ko teg ko fa jàppul ne tànnul ni au moment de choix moom la choisir mais am nañ sañ-sañ moom am na sañ-sañ bu dee ni candidat tànn na ko mais moom mu am sañ-sañ nag outil dem ci Sénégal yi tàllal leen loxo bu ñu ànd ak ñoom moom. mais Moussa mais loolu mais loolu mooy démocratie. Moussa yéen da ngeen a paradoxal mooy. le fait que àndoo leen ci. voilà bu tax ngeen dem. Mm-hmm. te pourtant sànq da ngeen ne ay républicain ngeen. voilà moo tax dialogue bi ngeen wuy ji. mais Macky Sall bu leen wooyee ci jàppale leen sama candidat parce que da danoo amoon. waaw Mohamed Dionne am. kii nu mu tudd Aly Ngoye am ñoom ñëpp ku ne dem mm-hmm. déposé. Mm-hmm. yàlla dogal ñu génnee Amadou Ba. Mm-hmm. est-ce que nekkul ni tey jii bu doon ni woote ci euh, wuy ci wooteeg président Macky Sall rek moo leen ñor mais da ngeen koy jàppale ci candidat am. non mais est yaakaar na ni nag yaakaar na ni politique noonu lay doxee. Ah, ma yaakaar dama dama dama yaakaar ni dama yaakaar ni euh, nit ku nekk ku nekk am nga ambition personnelle pour sa réew bi jàpp nañ ni. Mm. moom président jàpp nañ ni Amadou Ba. Mm. war naa mën a yeggali liggéeyam. mais jon jàpp na ni moom mun naa mun a yeggale liggéey bi ci réew mi lépp ba indi changement indi ay soppeeku yoo xam ne réew moom la soxla le pays a besoin de changement changement yooyu lañ jàpp la jàpp ni moom il est porteur de ce changement te loolu am na sañ-sañ bi pourquoi ñun parti politique yi nekk une fin en mais parti politique yi ay levier rek la coalition yi ay mbootaay yu ñu jiital rek la pour nit ñu sukkandiko ci mun a dem. mais ah. mais li gën a yomb li gënoon a yomb li gënoon a yomb jonn tey te sénégalais yi duñ ko kenn du ko kenn du ko xarat Mhm. kenn du ko wax leen lu ñaaw moom mooy mu topp ci ginnaaw benn benn bokk yaakaar mais yéene jum yéene Sénégal xam-xam boo xam ne yéene na leen pour def euh, liggéey boo xam ne yéene na ko liggéeyal ko Sénégal ak changement yi xam ne sa xam na ni profondément sénégalais moom la ñuy xaar la ñuy xaar mais loolu moo tax mu nekk candidat. est-ce que mais tey image yu jon waaw. est-ce que le fait que mu sësoon Macky Sall 2004 ba léegi ñuy ànd boog bu ma juumul. maanaam moom. foo ko gis moo mës a nekk tofoy président Macky Sall demoon na ba wax sax double bouton wax ne may bàyyi faalam gis nañ élection présidentielle 2019 bi mu ci joué directoire de campagne bi maanaam muyal la mayo pour Macky Sall. desalu ko dara. dem ba sax mu jël ay risques yoo xam ne politiquement. peut-être mun na ko toog ba tey. mooy joxe fi ay résultats yu génnagul wax waxagum ay candidats parrainage yu jàllagul. est-ce que loolu image boobu noonu. est-ce du ko topp nit ñi di ko xoolee benn Macky Sall quoi la la naan waa ji at yi mu def ak Macky Sall yëpp bu génnee nañu ñoom daf ñu bëgg a indil rupture mais les gens se posent des questions xanaa tey pour pourtant li Macky def yëpp ñoo ci ànd. mais mais Macky Sall ak Ablaye Wade. Hmm. jàppoon ne Macky Sall jaar na fu nekk ak Ablaye Wade. jaar na fu ne waaw. nekk na premier ministre am. nekk na président assemblée nationale am. nekk na ministre ministre de l' am. jaar nekk na directeur de cabinet am nekk na lu nekk pour Ablaye Wade est ce que la moo tax sénégalais yi. lu tax sénégalais yi. ba ñu jógee. tànn Macky Sall parce que c'est pas c'est un sénégalais la am na ambition pour réewam gis nañ ni il est porteur d'un nouveau message pour les sénégalais sénégalais yi wóolu ko ànd ak moom jàppale ko au même titre. mënuñ wax Idrissa Seck. ak Abdoulaye Wade fa lañ jaar. Idrissa Seck jarul yoonam gis nga politique. mais bokkul de xam ne bu jonn ba léegi diggante ma mag yi yëguñu problème bu ci dox. alors que ñee. waaw mais Macky Macky Macky il n'est plus candidat. justement Macky Macky Macky liggéey na li muy liggéey ba pare ba pare taxaw Sénégal ne mokkatuma candidat amatuma defuma je suis pas candidat au au troisième mandat mais libéré na Sénégal est-ce que nag doomu Sénégal yi doon ànd ak moom ku nekk nag naan ko doo bàyyi ma bàyyi. Sénégalais yi dañuy wax naan bu dee Macky Sall bàyyi na rek ñun ñëpp nañ bàyyi dem toog mais kon kan mooy liggéey réew mi kon patriotisme bi ñuy woote ñun suñu biir kenn am na est-ce que dañoo war a toog rek bàyyi réew mi. ku nekk jël say ambition lem ko denc ne Macky Sall pare na pare na mhm. je ne pense mais ambition boobu la am moom pour mun a secteur de demain Macky Sall il faut que nit ñi bàyyi ay affaire Macky Sall la doon àndal Macky Sall la doon liggéeyal bokkoon na fële bokkoon na fële loolu moo jeex gis nga ñi gënoon a jege Macky Sall doon ko défendre défendre troisième mandat am taxaw ci télévision ragal xeexal ko ñooñu tey ñoo jàkkaarloog moom ñooñu tey ñoo jàkkaarloog de la manière la plus virulente. mais est-ce loolu yoon la. moo tax ma ne moo tax ma ne il faut que ñu qu'on cesse parce que les gens politique ambition la gis nga doo def politique ba amatoo ambition da nga war a bàyyi la première chose moom mooy nga am ambition ba pare am volonté politique am programme am xalaat pour réew mi jon loolu rek la am donc yaakaar naa ni c'est pas un péché d'avoir des ambitions dans ce pays le benn problème benn boo ko yaakaar diggante boobu jeex na ñun ay nit fu la fay la ñun ñàkkuñ fayda ba tey ñu nekk ci jonn di jouer ay cinéma jonn ku fa nekk di jouer cinéma amu fa les gens sincères honnêtes engage pour le pays ñoo ànd ak moom amu fa ay ay amu fa ñoo xam ni day mais jonn ñun yabuñu ko bien yabuñu yaakaar nga ni ñun duñ xamoon ni jonn dafa nekk di jouer ak ñun ñu fréquenté ko di toog ak moom di nekk ak rem réunion guddeeg bëccëg xam engagement pour réew mi jël alalam ñàkk ba bërki demoo njaay bi ñu démarré campagne électorale ay millions yu bare bare bare ñu dépensé ko ci parrainage dépense ko suñu mitin de rentrée politique ñu xëy suba teel na moom lañu élection yi mais kooku foofu ñaareel bi képp koo xam ne yaa ngi koy jàppale nekkoon ci état bi dale ko ca Manirou Sy ci mu mën a Moustapha Diagne ci ay ay ñoom ñoom ñoom El Hadji Talla ñépp ku ci nekk mais régime bi lam la lam la lam la nga ko yoroon nangu na ko mais loolu nekkul si nga rupture ak leneen ak leneen ak leneen y paa pas de dialogue waxtaan amul ci jonn il a des ambitions pour ah, ce pays c'est le vrai il est en parce que benn moment Amadou Ba a été fragilisé quoi pour dire la vérité nga dégg ñi jege nguur gi naan dafa amorfu candidat la boo xam ne sax lu xorom ñu gis ni sax d'après li kenn wax sondage yi da ko favorable wul pour mu dem ñu gis ni tamit même dialogue bi benn yoon lañ ko ci tudd moom Amadou Ba mu ñëw wax wax joo xam ne matul sax 30 secondes dem yoonam nga sentir benn climat de tension diggante mag waa benno yi que mënoo am seen nit ba pare di ko sal waa benno yi ne mooy seen candidat ci la ay nit di génn du ko lii ñu ne Macky Sall galgalam dëgg mooy jonn est-ce que ne ak ñi dialogue bi demee ak ni jonn ñëwee wuy si ak seetlu boo xam ne man dama ko def le fait que Macky wax ba pare protocole peut-être politique la nekkoon mais protocole bi dafa laajoon pour que Amadou Ba tegu ci mag yi mais jon lañ teg ci ginnaaw Macky Sall ci dialogue bi pour mu wax. xam nga après ñu ñu xel xam nga xel moom xel kenn du ko téye ñu ne jonn mi est-ce que nekkul le vrai candidat. est-ce que est-ce que xam nga xam nga loolu lépp. c'est un c'est une c'est une vaste entreprise de diabolisation. Hmm. une vaste entreprise de diabolisation cest à nii. les gens sont en train de le diaboliser pour euh, dal ci kawam mais euh, loolu yëpp ay imagination rek de l'esprit la gis nga gis nga Mouhamed Boun Abdallah Dionne euh, man de li ma jàpp ci moom. ci nit ku am ngor la ngor moom mooy nga gëm ni ne gëm li jëbal xeyam am na d' abord te gëm ne li amoon xeyam am na man dafa am benn wax boo xam ne da ko wax mu daw sama yaram Pape Ngagne Ndiaye euh, sunu frère journaliste da ko laaj benn bis di ko wax ni ko dañoo wax ni yaay dangaa baara yëgoo yaag yaag Macky Sall mu tontu ko ne ko man yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde man Muhammad laa tudd mu ne ko am naa loo xam ne jombale naa ko sama der bi. am na loo xam ne rus naa ko man. mais am na loo xam ne tamit ni Macky Sall du ko rusul man rus naa ko. muy wax bu am solo parce que nit ki tamit dafa am ñoo xam ni ci ay valeur lañuy ñuy dox. ci ay conviction lañuy dox ci ay nekkul nekkul nit koo xam ni. dafay joué ak sénégalais yi position fu mu fu mu mas a am tey tey du nekkoon daal l'émotion des sénégalais. li nit ñi def lay def parce que li mu def tey ragal du ko def li mu def tey engagé dialogue bi dem fo bokk ci dialogue bi c'est parce que xam na réellement ni dana jot ay coups yu mel nii ngeen ko dóor <laughs> mais mais dafa jël ni dafa yemale am ak ñàkk xam nga yàlla nguur yàlla moo koy joxe te jot na ko comprendre dem ci dialogue bi taxul mu ñàkk nguur mu am nguur bañ a dem ci dialogue bi taxul mu am nguur te loolu il a compris bi mu ko comprendre rek la xam ni. na def li dal xelam def li dal réew mi jëg réew mi def li nga xam ni yàlla moom la santaane mooy togg waxtaan. mais def loo xam ne moo gënal xaritam Macky Sall parce que nit xarit ak kóllëre kenn mënu ko dagg dëgg la mhm. mais nag position politique dalee ko ci Abdou Diouf ak Moustapha Niass. dalee mhm. ko ci Djibo Djibo Leyti Ka dalee ko ci Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck Abdoulaye Wade ak ak Macky Sall ca ca ca ca Senghor ak ba léegi homme politique yi. seen ànd doo seetee noonu lay demee dañuy ànd ci li xeex benn xeex ëllëgee si biir xeex boobu jeex na ku nekk dema sa bopp am yeneen conviction yu ñu am yeneen gis-gis amoon yeneen ambition yu ñu porté ils sont porteurs de ce message il est porteur de ce message mm-hmm. de l' de ces sénégalais ñi nga xam yaakaar liggéey moom ci administration mu nekk des milliers yoo xam ni ñoom la moom lañ gëm parce que dafa am na fu mu jaar ak ñoom ñi ci des day seq ñoom liggéey xam compétence am xam mënam liggéeyam xam njàmburam ak maandoo loolu la ko nit ñi ànd ak moom ñun personnellement man nee naa la man du ma ndax yàlla ñu na kenn yoo xam nga sama jikko du diw yàlla nuyu na te gisuma ko bu doon loolu rek bu doon loolu rek am na feneen fi ñuy taxawee ñun mais Moussa parce que gëm-gëm googu la ñu ànd ak moom jàpp rek ni Sénégal fi mu toll ci wàllu réeróo ci wàllu économie ci wàllu justice yëpp mu am tëgg ci ay programme yoo xam ne programme ñu tuddee ko l'homme de la réforme mu indi ay programme goo xam ne dag naan lii yaakaaruñu woon mën am ci réew mi te loolu noonu ñun moom mooy suñu conviction xam nga ku ne danaa dem ba nga xam ne li may li ma yoon may ma nekk le chef suprême de la nation bokk tey membre éminente boo xam ne mooy jiite le conseil supérieur de la magistrature yoon may ko ko constitution bi jox ko ko mu ne du ngeen ma falee ëllëg si biir du ma toog ci conseil conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. te du ma sama benn ministre mu toog fa loolu wone na tey joxoñ bi mu joxoñ jëm ci wàllu Sall mi mu doon àndal looloo xam mais bi mu ñëwee defu ko. non non mais loolu Macky Sall engagé. Macky Sall engagé ñun suñu candidat la wax. suñu candidat du demeen ba tey. ba loolu mais bi muy ànd ak moom. ba loolu Macky Sall masul wax ni. mais bi muy ànd ak moom di nekk premier ministre mënoon na ko wax ni. ah mais mais mais mais justement nag foofu la Sénégalais juume xam nga Macky Sall wax na ko débb xam naa dégg ngeen ko déglu leen. Mm. day ne je suis la République c'est c'est-à-dire président moom la ko jox prérogative boobu constitution bi moom la ko jox moom mu définir la politique de la nation gis nga amul benn ministre amul benn premier ministre amul benn directeur de cabinet loo jege-jege Macky Sall président Macky Sall président de la République muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall muy Senghor amoo sañ-sañ yoon joxu la yow nga ne nii la ñu jàll réew mi réew mi kenn moo koy jiite benn nit moo koy jiite mooy ki jiital Sénégal loolu indi na fi

gauche bi da koo bëggoon imposer démarche am. mu leen du ma doxee noonu parce que man lañ man lañ fal. loolu mooy la même chose li ma la bëgg a wax président Macky Sall ak ku mu mënti doon premier ministre bu fi mënti jaar doo ko dicté li muy def. moom loolu la ko yoon wax te moom moo koy doxal te am na programme. mais am na benn proposition bu mu def di fàttali ni ñi ngi dalal Moussa Fall. Mm-hmm. jiite parti bi di Aprodel. mais aussi nekk responsable euh, comité électoral bi diwaanu Kaolack jonn président. Euh, jiite aussi commission patronat bi mais tey jii Moussa jon da am lu mu wax loo xam ne ñi ko mës wax yëpp jëfewuñ ko ci li ma xam à part Nelson Mandela loolu yàgg na peut-être contexte yi bokkul woon mooy président de transition de cinq ans moom nee na transition de cinq ans lay def joxe réew mi dem yoonam est-ce que nekkul ni de euh, waxu kuy ut la rek. non mais mais mais mais. parce gis nañ fi Macky Sall mu ne. cinq ans lay def ñëw na conseil constitutionnel moo ne ma amoo droit wàññi mandat bi alors que fii la le conseil constitutionnel wax ni le mandat est renouvelable bu waxee la mandat est renouvelable est-ce que mënuñu dem mu dóor cinq ans yi dem ba egg foofu ne conseil constitutionnel moo ne ma kat mandat bi euh, euh, yamul ci benn yow mun nga ko renouveler bu boobaa moom mu ne lii laa waxoon. Sénégalais mais Macky Sall dafa Macky déglu dafa dànk Macky Sall dafa day wàññi mandat cinq indi ko sept ans indi ko cinq ans. Hmm. loolu le conseil constitutionnel wax ne ko loolu mënul nekk. waaw mais def un mandat cinq ans dem yoonam. loolu c'est c'est faisable parce que nit ki mën nañ la fal ñaari mun a am ñaari mandat parce que doo amee cinq ans day représenté waat. da ngay ñëw laajaat Sénégalais pour ñu faraat la Macky Sall ñu ko fal 2012 mu ñëw 2000 2010 2019 laajaat ñu fal ko. ñu joxaat ko mais jonn moom jàpp na ni duñ ko falee 2000 2024 euh, duñ demee du présenté waat mais dana fekk programme bi nga xam ne bëggoon na koo installé Sénégal. jëm ci wàllu économie ci wàllu justice ci wàllu indépendance indépendance de la justice ci wàllu ndaw ñi surtout les jeunes ak digg suñu digganteeg suñu euh, lu ñu wax lee licences de pêche suñu digganteeg les ressources naturelles mun na ko teg ci yoon ba nga xam ni ku koy remplacer ëllëg si bi da nga ñëw tegu ci yoon bi rek loolu la gis te xam nañ ni am na compétence yi am na mën ñu d'accord nañ ci nous sommes tout à d'accord parce que réew mi gis nga yàgg fi yàgg yàgg yàgg ci réew mi yàgg ci réew mi taxul liggéey yàgg fi nag baax na mais nit ki dana tëgg ay programme yoo xam ni dana teg ak xarañte te ay te te ku ko xam xam ko ci xarañte googu bu xam nit ñi xam ko ci moom. Mhm. loolu du ko ci yàlla dimbale laajul mu fi defaat fukki at ak yeneen yeneen fukki at mën na def mandat de cinq ans régler tous les problèmes de sénégalais ba pare teg aksi ci yoon ba pare teg programme ci yoon ni ki kenn remplacer ñëw eggali ko tegu ci yoon bi loolu c'est possible parce que tey doo seetee li ñu wax wax na benn wax bu am solo barki démb dañ ko laaj ne ko. bu la yàlla euh, fanaa doo fanaanee sa premier jour en tant que président de la République doo xëyee doo njëkk def mu ne damay damay damay damay euh, li may njëkk def moom mooy licence de pêche yi signé Sénégal signé les de pêche mm-hmm. mu ne dama koy annuler damay résilier yëpp mais loolu ñaata alal la Sénégal doon perte loolu doom yi bay kii nu mu tudd euh, pêcheurs yi léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo les industries Sénégal ñi nga xam ne nekk ci wàllu pêche bi ñaata la ci Sénégal doon ñàkk ak lan la lan lan la mos a jëriñ Sénégal mais loolu rek jaroon ñu fal jon te ñun xam nañ xam nañ jikkoom ba xam ko mu leer leer yàlla premier acte bi muy posé loolu lay nekk mu ñëwaat ci wàllu pétrole ak ressources naturelles yi mu ne bëgg na ressources naturelles yi waxul ñu ñëwul la fi nekkoon yëpp ñu dindi ko mais dana mu ne dafa bëgg a repositionner Sénégal mm-hmm. ba ñun ñu gis suñu bopp ci ressources naturelles yi ñëw ëllëg parce que tey Sénégal am na gaz am na fer am na pétrole am na lu nekk ressource naturelle lu nekk am na Sénégal mais ba léegi sénégalais yi ñu ngi wër di añ ndekki ak reer ak añ tëfi nit ñi mu ne loolu dafa nekk te pour que sénégalais gis seen bopp ci loolu ndaw yi génn géej gi suba ngoon suba di jaar ci géej gi di di dugg bitim réew dem dem dem Europe dem France dem États-Unis fu nekk tey xale yi ñu ngi koy fëlee di génn réew mi mu ne programme bokk na ci spécialement. pour ñu fixer ndaw yooyu ci réew mi parce que duñ gisee réew moo xam ni dañu ne 17 millions d'habitants la te 70 pour cent des jeunes yi fi ñoo fi nekk ay ndaw yoo xam ni amuñ 35 ans lañ mais loolu réew moomu noonu du ndaw yi vidéo dem kan moo ko liggéey la mais est-ce que plagié woo leen kii Sonko ah parce que li ngeen wax ni yëpp Sonko yàgg na ko wax ah. non mais mais le projet Pastef. non mais xam nga projet Pastef dafa mën ko jiitu xam nga xam nga hmm. hmm. waaw gis nga discours yi. discours yi ñuy wax ni ci réew mi. Mm. yu ci bëree bëri discours yooyu ñun dégg nañ ko depuis 88. Mm. depuis 88 dégg nañ ko c'est-à-dire les discours révolutionnaires ñun ñun ñu nekkoon ay ndaw nekkoon ci biir LDMPT ñun discours yi moom moo taxoon ñun ànd ak Abdoulaye Bathily l'impérialisme du ñu doon xeex tey jàpp rek ni suñ réew mi dañ ko dénk tubaab yi ñoo ñoo ñu dox doxalal loolu yàgg nañ ko dégg yàgg nañ dégg ni suñ ressource naturelle dañ koy exploité yàgg nañ ko dégg te Cheikh Anta Diop ba léegi ñu koy dégg donc y a y a rien de nouveau dans man li ma gëm mooy nii léegi li am mooy ñu doxe ko ñu ñu soppee changement yi dafa jot. ngëm-ngëm yooyu muy Ousmane Sonko muy Ousmane Sonko muy Boun Abdallah na muy Amadou Ba képp ku ñëwati ci réew mi jir ko jiite ko danga war a indi ay changement yoo xam ni sénégalais yi ndaw yi dañ ci gisee seen bopp rawatina nag mooy jaboot gi ci xiif bi mar mi ñàkk faju problème jàng problème yëpp taxaw loolu la ñu wax ni Macky Sall li mu ci liggéey liggéey na ko sant nañ ko ci bu baax def na ci jéego yi am solo. ñu d'accord ko nangul ko ko parce que xam naa li ci lim ci def mais li ñu am solo nii ci wàllu dund gi dund gi soppeeku ndaw yi mun a am kuñ jàpp ñu tabax ay usine tabax ay industrie fexe ba Sénégal ndaw yi mun fee des ñu mën a jàng-jàng ñu ñu mën a former ñu former leen fii Sénégal mën a jëm kanam loolu mooy suñu discours. mais kii euh, John na lay def avec les jeunes loups yoo xam ne tey jii am na nu bayre bari nañ coow gi ñu ngi leen di gis fépp moom mu nekk ci mag leen. jiitu leen ci ah, ci lu ah. mag mag mooy expérience comme genre Diomaye Faye. ma mag mag moo tax ñu bëgg ñun moo tax ñu bëgg ñun fii réew mi toll ci wàllu géopolitique ci wàllu sécurité la les régions de la. te gars yi booy lañu booy lañu. ci wàllu ci wàllu ci wàllu euh, ci wàllu koom-koom. ci wàllu économie ñun liñ jëm moom mooy nii il faut que ñu am euh, un chef d'état. Mhm. bu mel ni moom un chef d'état. bu am lu ñuy wax expérience bu mat sëkk il faut que ñu am un chef d'état boo xam bu xam état jaar ci yàgg ci liggéey il faut que ñu am chef boo xam ne am na relation relations internationales yu dëgër yoo xam ni dana mun a xam li xew bitim réew ba pare mun a xam maîtriser sa ko nag la géopolitique il faut que ñu am un chef d'état boo xam ni tey dana ànd ak dal dana ànd ak maandu dana dana dana du soxlaal réew mi dara mais dana am dana am calme ak ak euh, dana am dal goo xam ni dana mën a jubale sénégalais yi sénégale yi du ëllëgee si bi mu bàyyee ko xale yi loolu mooy discours am mu ne duñ ko bàyyee xale yi nag xale yi dana fekk ñoom ñu formé leen xale yi dana fekk réew mi tegu ci yoon xale yi dañuy ñëw rek doxal hmm. donc loolu mooy gis-gisam te man lii ci mu may wax nii ci moom laa ko déggee mais mais Moussa dafa am lu xew loo xam ne actualité mooy amnistie hmm. la loi d'amnistie am na ñu ci ànd am na ñu ci àndul gis nañ les détenus politiques ñu leen di génnee gis am na ñu ne Diomaye mi Sonko ñoom ñëpp danoo war a génn pour que réconciliation bi jon di wax ñu mën ci egg mais fi ñu ko nar a jaare loi bi jur dem loi si boobu di fàttali ni je ne voulais pas le citer El sa frère la waaw <laughs> sa frère la sa kii frère u Cheikh la ah moom El Hadj Diouf ñoo bokk benn <laughs> benn waajur El Hadj àndu ci parce que dafa jàpp ni ay bànn ñoo nekkoon ci réew mi dana war a leeral lii am ñeneen aussi wax ni am na ñu ci dee am na lii mais le président Macky Sall ci position dafa jàpp ni lool lii dalal réew mi la yow bonne position nga am ci loi d'amnistie boobu. mais man sama position mooy mooy mooy ñun le principe dañu ne euh, dafa bokk suñu axe fondamental suñu programme mooy la réconciliation nationale doo seetee waxtaan bu bari li muy bari yëpp Mohamed Boun Abdallah Dionne saa saabu génnee nee na Sénégal faaw ñu jubóo te loolu dafa dafa nekk te gaz. des gages. mais fa lañ koy jaaree jubóo. pour que ay gages yoo a nekk pour que ëllëg si biir réew mi ñu mën ko liggéey parce que mënuñ développer réew moo xam ne amul jàmm. est-ce que dëgg war ko jiitu. non je pense que moo tax moo tax ñun ñu am programme pour justice. Hmm. ñu am programme pour la justice li ñu li ñu am solo mooy dañu ne ñun nañ fexe ba Sénégal ay jubóo loolu dafa nekk discours am fondamentalement hmm. dafa bokk ci programme la réconciliation nationale hmm. le pardon président Macky Sall ñëw proposer amnistie bi mais ñun. nu sommes tout à fait d'accord sur le principe mais dañu ne nañ ñi ngi xaar ba xam ñan la la ci amnistie bi ñu doo koy mën a xam parce que dañu ne mënuñu mënuñ mënoo mënoo mënoo mënoo xam réellement ndax ñi nga dégg tey ñoo def ñaaw te fii tey ki jëm lu mel nii tey kaar euh, bi ñu sànni woon bër bërke bomb bi mu am ñaari xale dee ci ay nit def ko te ñu ko def ñu xëy ñoo euh, ñooñu di jooy seen jooy seen i doom génnagul ñu génne ñu jën dem seen romb leen mm. façon yu mel noonu la wax mais dañu ne. mais leeral tamit quatre-vingts jeunes yu ñu rey ci ay manifestations. nous sommes nous sommes nous sommes. gars yi dañ naan la benn car bu ñu lii rek ñaari nit dee. mais fu quatre-vingts jeunes dee waroo fa wax ay ñaari car mais moo tax dañu wax dañu wax ah. loolu loolu loolu la ñu wax ni. Hmm. yooyu ay lu ñu war a waxtaaneel waat lu ñu ko war a waxtaanee la pour que réew mi am jàmm jar na ko parce que moom laa dégg muy sama candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ne pour la réconciliation du Sénégal mu ne aucun sacrifice n'est de trop. ça veut dire que ni ni pare na pour lépp. mais nañ fexe déglu président ak loi boobu mu indi ñu xam loi bi ñan la ciblé ak fan ak fan la ñu boobaa ñun ñu doog a jox suñu position officielle mais lu wërteew moom mooy sur le principe la réconciliation nationale mooy sunu su mooy sunu mooy bokk na ci sunu ay fondamentaux yi nga xam ni moom lañ jàpp mooy tax mooy tënk tënk suñu programme pour réew mi parce que réew moo xam ne amul jàmm am développement du donc démocratie ak justice ak jàmm ci léegi mu dal nag la am te dal il faut que ñu juboo réew mi xol yi ta ñu tappe xol yi comme ni ko sëñ maam Abdou doon waxee waaye il faut que nit ñi juboo ñu réconcilier ba pare doog a mën a seet nañu liggéey réew mi te loolu mooy suñu programme. Mhm. mooy seen programme Moussa ñi ngi jeexal. waaw euh, peut être question mooy jaar jaar bi. LD parti de gauche Benno ah. Mhm. tey jii Mouhamed Dionne pourquoi pas porter ce choix ci El Hadj Diouf sa frère. te PTP yéen ko créé woon. waaw mais non man ma man créé moo ko dama ko fekk dama ko fekk man man man euh, LD LDMPT lañ bokkoon. waaw ah. mais euh, euh, le parti des travailleurs maa ngi ci ñëwoon en 2007. Mhm. bi nga xamee ni El Hadj sollicité woon na ma après mu nekk bi mu nekkee ministre. Mhm. pour mu ñëw jàppale ko dans la région de Kaolack. Mhm. foofu lañ. ànd nga ak Mimi Touré aussi même Mimi Touré doon ngeen ànd conseil économique. waa Aminta Aminta j'étais son conseil spécial. waaw moom tamit j'étais son conseil spécial liggéey nañu au niveau du conseil économique euh, bokk nañ ci lu bëri ay gis-gis ci wàll politique parce que moom c'est une femme de gauche ñu bokkoon liggéey tamit jëm ci wàllu boobu. seen taxali ko xam na ma bett aussi. voilà non non non man tamit euh, comme politique man ay conviction laa koy defee ku ci nekk damay ànd ak yow damay ànd ak yow ci principe parce que euh, yàlla dimbale na ma dara fanqul dara muur suma bët dara tamit impressionné ma. li may ànd ak yow damay ko ànd ci ngëm-ngëm laa koy teg ak ci ay démarche du ma xamee ni li nga dëkk mu nga bëgg li nga bëgg lii la. Hmm. mu mu dëppoo sama gis-gis ak sama gis-gis ma ànd ak yow ñu liggéey. pourquoi pas El Hadj pourquoi pas El Hadj donc euh, non non non non ànd nañ ma ak moom ci politique li ñu war a ànd ànd nañ ko ci politique a cheminé ensemble on a travaillé ensemble. réew mi la bëgg réew mi la waaw on a on a travaillé ensemble donc réew mi euh, euh, nous sommes une famille très démocratique nag. Hmm. loolu tamit yàlla dimbali nañ ci. te euh, ci lu ma nekk dama koy nangul moom. mais amoo leen amuñu benn problème ci loolu. parce que mm. El Hadj Seton il est il est foncièrement démocratique. te xam na ne ñun man acteur politique la damaa am sama gis-gis am sama conviction moo ma yar ci biir ci depuis la LDMPT xam na sa xam na fi ma jaar xam na xam na tamit samay jaar-jaar ci wàllu politique te nangul na ma ko. donc man gisuma gisuma gisuma fi mu nekk nii du ñu war bis bu ñu waroon ànd nii dem dem ci wàll ci wàllu ci wàllu ci wàllu politique def alliance dañu def def alliance ànd te boobaa boobaa dana xam ni. convaincre ñëw sama conviction tey dëppoo naa conviction pour ñu mën a ànd liggéey. yow yaa mais man sama gis-gis loolu yaa ñu a xam El waaw nit image bi muy joxe nit ku bari histoire nit ku lii nit ku lii yow benn témoignage bu gàtt rek ah boo xam ne peut-être xam nga lenn ci El Hadj lu ñu xamul lan nga mën a wax ci El Hadj Diouf. non non ki ñuy présenté nii moom la wala yow de xam nga. mais El Hadj li ko li ko sénégalais di di di ko di ko di ko présenté nii di ko wax mais bokkul ak jëmm bokkul ak moom sax El Hadj c'est immensément généreux mun kam kenn mënut a natt natt natt générosité mënoo ko natt. Mhm. ñaareel ba moom mooy nii du jàppal kenn dara. lim la waxee di la ko waxee xalaat lim jëpparaat xalaat wax na la ko. ci pare nga ci waa Pastef moom jàppal leen dara. non non du jàppal dara c'est-à-dire moom moom du leen may dara combat ces combats c'est des combats de principe. Mm. duy xeex benn mbir nag da ngay defee ni diw rek la kon parce que. Euh, am na opposition bi kan la fi El Hadj jàppale wul donc xanaa xanaa benn Ousmane Sonko laa gis mu jàppale ko fi mais Khalifa Sall opposé na ko mu nekk ak mu ànd ak Macky Sall jàppale soutenir euh, Khalifa Sall bopp nekk avocat di ko défendre souvent nga dugg rek Barthélemy Diaz nekk na dans opposition radicale El di ko jàppale te nekk benn bokk yaakaar. mais diggante mag Sonko moo tax ma la moo tax ma la moo tax ma ne gis bokkaguñ gis-gis. ci wàllu ci wàllu politique. Hmm. mais man li ma gis moom mooy li ma xam euh, leen defal tey sax la primeur je suis en train d'écrire El Hadj Diouf euh, devoir de reconnaissance. Mhm. te loolu noonu danañ dana dana dana am solo parce que bëgg na jël ci waat ci jaar-jaaram ci taxawaayam ci politique depuis université depuis depuis depuis depuis depuis depuis ci euh, bi mu bi mu bi mu bi mu nekkee ndaw fu mu jaaram yu ci baree baree bari ak jaar-jaar ci biir Ablaye Wade génnaat ci gouvernement bi yëpp incha allah assemblée nationale yëpp dañ ci dikkaat mais surtout la sa personnalité euh, intrinsèque. c'est-à-dire l'homme El Hadji en tant que tel avocat. Oui. on va revenir sur ça allah. Moussa émission bi jeex na looy tàggatoo. mais xanaa ñuy gërëm bu baax a baax euh, sama jeune frère. Mhm. Euh, man xëy na ni li may communiquer ci fii bëriwul. waaw mais damay suivre rek. Mhm. ndax nag euh, lu bëree bëri liggéey bee may tënk. ñaareel bi aussi tamit sama temps le plus. Mhm. ci ci ci liggéey laa koy def maanaam sur le terrain. sur le plan politique je suis très je suis plus sur le terrain dans dans dans dans dans les médias. moo tax ñu ma gis lu bëri ci ci ci antenne yi ci ci télévision ci média yi. Mm-hmm. mais c'est euh, sûr un acteur majeur de la vie politique du Sénégal. Mm-hmm. liggéey naa ci liggéey boo xam ne ci jaar-jaar wax nga ko léegi. Mm-hmm. depuis depuis depuis depuis trente ans depuis quatre-vingt-huit combat yu bëri mën nañ ko parce que xam nga ni man j'étais bi ñuy ñëw deux mille euh, coordination des jeunes de l'opposition membre bureau national laa nekkoon. Mm. jiite woon Kaolack doon fa liggéey liggéey yu am solo ñuy ànd fa ak yi fa nekk yépp doon doon doon nekk ci opposition bi ba indi Ablaye Wade au pouvoir. Mhm. donc nekkoon jure jure bis am liggéey bu am solo bu ma ci jiite naa parti bi au niveau de Kaolack euh, euh, pendant onze ans en tant que responsable jeune jiite département bi. mais aussi tamit euh, le premier congrès le premier congrès décentralisé bu ñu jëlee Ndakaaru yóbbu ko ci région sama Kaolack la ko indi pour rendre un hommage professeur Ablaye Wade jëli maa koy nuyu de passage. mu def organiser congrès des jeunes à Kaolack pour me rendre un hommage parce que je devais quitter le mouvement des jeunes au niveau de Kaolack. Mm -hmm. donc c'est la première fois c'est la première fois qu'on déplace un congrès national pour aller dans une région te Kaolack lañ ko defee. jërëjëf loolu mooy wane nag ni euh, ay ay lii sama sama sama sama sama sama sama sama euh, kii di wax nu mu tudd sama sama sama candidat. Mm. Mohamed Boun Abdallah jonn danaa faral daan man duma ma leetaru ndaw. du lettre bu ndaw mais man aussi du ma lettre bu ndaw. jërëjëf moo tax ñun ñu mën a ànd. merci Moussa Fall euh, jiite parti bii di APRODEL. waaw parti boo xam ne raar na ci parti mooy développement local. parti boo xam ne dañ koy lii pour euh, développer la région de Kaolack. loolu aussi bariwul li muy am Sénégal nga bokk coalition jonn président. Mm-hmm. Euh, doon président commité électoral bi ca Kaolack. Mm-hmm. mais en même temps jiite aussi commission patronat ci coalition Mohamed Dionne président. tey nag euh, mu doonoon plaisir ñu. di nuyu sama mbokki Kaolack yëpp nag. Mhm. ñu ko jiitee coalition ba ñoom docteur Abdoulaye Alioune Diouf. Mhm. ñoom sama le jeune responsable euh, Abdoulaye Diouf. Moussa nag li ngay wax moo bariwul yow li nga bëggoon wax yëpp nga bëgg a wax ah, bu baax. <laughs> Moussa di la di la gërëm bu baax. <laughs> di la sant ah. ah, li ngay ñëw ci média yi bariwul. démb sax yéex naa la woo ci guddi. mais defal nga ma ko te loolu yàgg la. di la ñaanal suñu borom yokk la wér yokk la jàmm yokk la xewal yokk la sutura di ñaanal El Hadji Modou Diouf euh, ci régie bi ab Ablaye Diallo ak Abdou Top Omar Bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi beneen àllarba ñu dikkaat ci beneen focus mbokk yi jërë ngeen jëf